Maître Abdoulaye Tine maa ngi lay nuyu. waaw maa euh, avocat nga ca barreau bu Paris yaa jiite aussi parti bii di union sociale euh, libérale euh, ñu am mbégte lool dalal ci matinalu Rewmi FM maître ñu dooree waxtaan wi ak lii di état d'urgence bi ñu tegoon ci Sénégal président de la République jël na dogalu puusaat ko ba weeru juin fanweeri fan ñu bëri jàpp ne coup d'état la ci wàllu institutionnel ndax yow noonu nga ko gisee. waaw non man gisewu ma ko noonu mënuñu ko jàngatee noonu parce que euh, mën nañu jàpp ni euh, ndaam puus na état d'urgence bi mën nañ jàpp ni dépassé wu limite trois mois bi nga xam ne moom la ko assemblée nationale mayoon mais fàttali ni limite boobu mu ngi commencé premier avril bés bi nga xam ne ci la assemblée nationale voté loi bi nga xam ne moom mooy président sañ-sañ mu intervenir ci domaine am ñu koy woowee loi d'habilitation mu teg ci beneen pàcc bi nga xam ne moom mooy wéyaloon état d'urgence pour kiiru ñetti weer donc bu dee donc dañu jàpp ne le premier avril la jeexoon ñu wàññi ñetti weer ñetti weer yi mu ngi jeex le premier juillet deux mille vingt moo tax mu yemale ko le trente donc mën nañ jàpp ni ba léegi respecté na limite constitutionnelle bi mën nañu bañ a jàkkoor président wante aussi euh, foog ñu xam ne euh, mbirum droit science la daa am ay bonk ak sart yi nga xam ne ñoo ko lal et que boo xoolee suñu constitution article soixante neuf dafa may président sañ-sañ bu instituer euh, donc état d'urgence loolu pouvoir propre la comme ni ñu koy waxee ci droit constitutionnel mmh. léegi moom lu ko constitution may def ko ne bu ko décréter décret boobu am na benn validité bi nga xam ne mënta weesu euh, fukki fan ak ñaar. Hmm. donc président mu ko décrété woon le 23 juillet. boo wàññee euh, donc entre le 23 juillet ak le premier avril bi nga xam ne ci la assemblée réunir matagul woon fukki fan ak ñaar donc respecté woon na ak bu ñu ko joxoon. léegi ba depuis le premier may nañ ko ñetti weer léegi nee na da koy wóyal ba le 30 juin mën nañ jàpp ni ba le 30 juin. mu ngi wàccoo ak yoon que wàccu woo voilà wàcc booromal. wàccagul yoon ñoom ñooñu la léegi nag lu buñ ci war a leeral préciser ko moom mooy bu dee le 30 juin jot na président bu bëggee continuer wëyal état d'urgence bi wa kuli alin foog mu dem laajaat assemblée nationale benn dogal bu bees benn autorisation ñu may ko mu wëyal ko mm. bu loolu amul tam. Euh, état d'urgence bi day daal di jeex. Mm. à partir du 30 juillet à minuit euh, du 30 juin plutôt à minuit. Mm. et que mesures yëpp yu ñu jëloon couvre-feu yooyu yëpp day daal di tàkk. constitution beeg liberté comme nuñ ko prévoiroon en matière normale ñooy appliqué wu. Mhm. alors euh, ñu wax ci beneen boo xam ne aussi yëngal na Sénégal jamono yu ñu weesu muy euh, décret bi euh, doon def honoraria ca conseil économique social environnemental bi mu génnee waa présidence wax ni du dëgg waaye ginnaaw gi tax na ay homme politique yu bokk ci CRD def ab plainte fas yéene attaqué décret boobu bala ñuy ñëw ci wàllu yoon bi yow en tant que homme politique noo jàngatee coow loolu. waaw coow loolu lu ma ko jàngatee mooy euh, démocratie moo leen may sañ-sañ boobu bu ñu jàppee ni président jël na benn dogal bu ñu jàppee na euh, war moowul ak ponk ak sart yi wala àndul ak euh, objectif u gouvernance yi peut-être ñoom mën nañu xool nan lañ ko jéem a jooytoo ci chambre administrative cour suprême mi nga xam ne mooy juge bi nga xam ne moom la prévoir muy ëttu attekaay bi nga xam ne kuy jooytu mbirum moseur bi nga xam ne état dañ ko jël foofu nga fa war a dem donc loolu euh, ku euh, awma ci dara lu may wax parce que seen sañ-sañ seen droit la léegi nag euh, li ma ci bëgg a leeral en tant que technicien du droit mooy fokk ñu distinguer ñaari mbir moom mooy li ñuy woowee validité wu décret bi ak opposabilité wu décret bi maanaam validité wu décret bu dee président jël na décret ne day jox ay avantage kenn euh, da koy dal di woo rek ne ko sa décret pare na signé nañ ko mu ñëw jël ko yóbbu jël fonction wala mu jël ay avantage am yi nga xam ne ñoo koy jox loolu donc amul xaar par contre décret bi nag euh, pour mu opposable ko tiers maanaam ñu mën koo euh, donc exciper vis-à-vis des tiers foog mu am benn mbir bi nga xam ne mooy publicité moom maanaam ñu fësal ko ci journal officiel mi nga xam ne décision bu état bi jël yëpp en matière législative wala réglementaire foofu la ñu koy euh, siiwal mm. euh, bu dee loolu am na day dal di maye ab diir délai wu deux mois ñaari weer bi nga xam ne bépp citoyen wala association bu mu mënti doon politique ou autre mën na dem saisir le juge ci limite délai boobu moo tax ma ne léegi ñoom bu ñu ko bëggee jooytu chambre Cour suprême foog ñu vérifier déjà ban jour la ñu ko publier et que bu ñu xoolee à partir de là bu dee ñu ngi ci tere yi nañ ko dem jooytu yi foofu wante daal li ñaari mbir yooyu foog ñu féewale ko bañ a juum ci validité bi opposabilité bi. Hmm. est-ce que ci wàllu yoon bu nu ci sukkandikoo yaakaar nga ni euh, mën nañoo am ñoom li ñu bëgg waa opposition bi ca ca pànd wala bu ñu attaqué décret boobu. waaw loolu mënuñu ci tontu waaw wala déet tout dépendra rek ci argument yi nga xam ne ñoom moom la ñu nar a euh, indi mm. ci kanamu juge bi ci otu attekaay boobu lan la ñu nar a fësal euh, man nekkuma ci dossier bi nekkuma ci xeex bi parce que ñun nekkuñu ci ñi nga xam ne ñoo porté plainte wante euh, donc comme ni ma la ko waxee sànq rek tout dépendra ci ñoom argument yi nga xam ne moom la ñuy jënnee ndax argument yi nga xam ne am na cëslaay ci gis-gisu yoon. Mhm. alors ñu wax maître ci euh, féewaloo gi feeñaat diggante nguur gi ak opposition bi moonte bi mbas mi di doog laal Sénégal gis nañu benn déggoo boo xam ni ñi ngi ko jëmaaloon ci ay audience yu amoon ca pale est-ce que yow sax bokkoon nga ci ñi nga xam ni président waxtaanoon na ak ñoom ak itam lu doonoon sa gis-gis ci plan de riposte bi nga xam ni teg na ka Euh, déedéet man moom bokkuma woon ci audience yooyu euh, ndaam ñun suñu parti taxawoon na ci ouverture du dialogue national bi ñu ngi woon ci palais bi ci consultation yooyu teew demuñu ci parce que dama jàppoon ni consultation yooyu mënuñu ko woowee consultation mm. parce que président ci boppam dafa xëy euh, jël mesure décréter état d'urgence décider ci lu mu war def Euh, léegi nag soog a woone li ma ko jàppee symbole la woon c'est-à-dire genre ngistal dañ doon wone Sénégalais yi peut-être que am na benn union wante union boobu en réalité amul woon consultation sax amu fa mën naa jàpp ni consultation réception la parce que biir bi déjà bañ fa doon toog dafa gàtt il aurait fallu avant ñoo ñëw jox leen ay dossier il aurait fallu avant moo jël état d'urgence bi bu koy décréter mu wax leen moom fan la bëgg jëm yan matuwaay la bëgg a jël ak ci jan anam loolu yëpp dara amu ci et même ña fa génnee ko ci déglu boo déglu ay kàddoom day ne man laaj naa président mais déggoo kenn ki nga xam ne président nee na ko laaj na ko ci lan donc loolu nag dañu jàppoon bi du li nga xam ne euh, dina yàgg et que malheureusement donc suite événement yi wane na ne loolu euh, maanaam Euh, union de façade la woon rek. Mm. et que ba ñu commencé ba mbir mi tàmbali dëgg euh, gis nañ ne ku nekk dellu nga fi nga nekkoon. Mm-hmm. yaakaar nga euh, booloo opposition ak pouvoir jamono yi Sénégal toll mu am njeexital ci xeex mi ñuy xeex mbas mi. waaw loolu lu mën a am njeexital parce que boo ko gisee ndaam man jàpp naa ne loolu ngistal la woon. Euh, ci njëlbeen euh, am na lu mu indiloon président lu mu ko indiloon moom mooy maanaam daf ko xalaloon yoon maanaam lépp lañ ko bàyyi woon moom rek nga fi doon dégg muy déployer politique am ñëpp di ko déglu ñëpp di ko topp et que loolu aussi euh, dooleeloon na ko parce que sénégalais yi neewoon nañ tekki di ko déglu way politique yi daanaka ñu ci bëri noppi waxatuñu loolu dafa joxoon benn esprit union sacrée mën nañ jàpp ne lu ko doon dooleel. Euh, léegi loolu mënoon nañu permettre effectivement ñu gën a ci xeex bi mais gis nañu ba loolu de ba ñu demee ba loolu amatul maanaam union boobu naxsaay nërmelu euh, daanaka président ci boppam dafa dal di isolé wu dafa dal bi fragiliser wu euh, daanaka boo gisee ci déconfinement dafa xëy rek Euh, woo Sénégalais yi daam dem nañ cour suprême ñun nga xam ne ñu ngi doon xeex pour rapatrier mbaawu koor yi ba moom juridiction yi ne ñoom euh, donc nekkuñu woon ci yoon moom dafa ñëwaat dellu ginnaaw désavoué leen euh, et tey population yooyu logique boobu la ñu topp bay naan kenn du fi suul néew donc loolu rek dalay woon ne que moom ci stratégie dafa jaxasoo deuxièmement bi mooy li nga xam ne comme moom dafa fragilisé woon ñëpp commencé di contesté muy machine yi mu muy ci marché yi plutôt muy ci ouvrier yi mais aussi ñi nga xam ne ñooy lieu de culture yi muy chef religieux yi daanaka loolu euh, daf ko dal di pousse que finalement dafa jékki euh, yëkkati mesures yenn euh, daanaka sénégalais yi dañu jékki rek xëy ne leen foog ngeen jàng dund ak virus bi alors que pendant ay weer ak lu teg ñu leen doon naan mooy leen moytu leen mbas bi moytu leen mbas bi donc sénégalais yi finalement loolu daf leen jaxase ba léegi xamatuñu fu dëgg bi féete et que xamatuñu sax nan la ñu war a doxee ci mbirum mbas bi nga xam ne mooy Covid 19. Mm. daanaka bu ñu jàppoon euh, bu dee consensus boobu amoon na euh, di continuer di wéy effectivement ñu teg ko ci ngoor dox ko ci dëgg. peut-être heure bi war na fekk ñuy continuer di am ay jéego di jàmbaarloo ak ma di jàmbaarloo maître ñu ñëw ci bracelet électronique bi Sénégal bëgg indi euh, ci wàllu yoon euh, ñu ne mën naa wàññi ni kaso yi di feese ndax yow am nga bracelet booba loo ci tiit wala loo jàpp ne war na caa jiitu euh, comme liggéey bala ñu koy doxal. waaw bracelet bi mën nañ jàpp ne mesure alternative à l'enfermement lu ëpp fukki at maa ngi koy pratiquer ci barreau de Paris di ci am ay nit yi xam ne dama leen doon accompagner donc dispositif bu ma xam la wante dafa nekk dispositif bi nga xam ne déjà ca lu cës cëslaayam bi moom mooy technique c'est-à-dire nit ki foog ñu koy mën bi xam di ko repérer en temps réel xam fan la nekk nan lay doxee fan la génn ndax mu ngi ci zone bi wala nekku fa euh, ndax mu ngi respecter mesures yi loolu day laaj nga nekk ci dëkk bi nga xam ne euh, lépp day dox euh, Sénégal fii déjà même biir Dakar internet bi nu muy doxee ça dépend ci lieu yi nga nekk waxatuma nag boo génnee Dakar donc déjà loolu rek day nekk benn genre limite technique bi nga xam ne euh, ci par rapport ak bracelet bi beneen bi moom mooy pour remplir conditions yi euh, daanaka boo xoolee ci euh, des sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo am problème ak yoon yépp ñooy mën a nekk ci conditions yi ñetteel bi moom mooy mbirum bracelet bi du benn saafara bi nga xam ne mun na régler bépp jàngoro bi nga xam ne moom la ñu am ci prison yi prison yi ña fay nekk ay juge ay procureur ñu leen yóbbu mandat de dépôt alors que yoon dafa ne principe bi moom mooy dañ la war a bàyyi ngay dox say soxla ba bés buñ la waree jugé ñu woola bu dee am nga adresse bi nga xam ne foofu mën nañ dafa fekk woola alors que fii moom bu la coow toppee nga def wala defuloo dañ lay def tour de parquet placement loolu ñu nekk organisation yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama ñu ngi koy jooytu depuis lu mat fukki at ne foog mu am benn juge des libertés et de la détention kenn ku bokkul ak procureur parce que procureur bu yeewoo ni ay policiers pour ñu leen jël si la interroger la def PV mais boo moytuwul booy signé PV bi dañ lay jàllale loolu moo tax mu war am benn magistrat buy bokkul ak moom ñu koy woowee juge des libertés et de et de la détention kooku mooy saytu xool est-ce que yow mii mën nañu am beneen mesure bi nga xam ne mën nañ la ko teg eh, ba nga xam ne doo dem prison donc loolu ci gàttal euh, mesure bi mën na nekk mesure bu baax mais techniquement foog ñu étudier waat ko wala xool nan nañ ko mën a adapté ci suñuy réalité ñaareel bi moom mooy aussi politique pénale bi foog mu évoluer foog ñu am benn juge des libertés de la détention pour koy accompagner. Mm-hmm. kon daal su ma la déggee Sénégal pareegul pour euh, mën a utiliser bracelet waa ci lu ma jàpp conditions yu réuniragul wala ku ñu ko yàkkamtee boo moytul safaan bi nga xam ne safaan bi day jur ci xam lu bokkul ak li nga xam ne moom lañ ci doon xaar. Mhm. jërëjëf maître Abdoulaye Tine amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni avocat nga ca barreau bu Paris waaye itam yow yaa jiite union social libéral di parti politique sénégalais jërëjëf maître. waaw maa ngi lay jaajëfal ci dalal bi di la mhm. jox tox daje beneen. incha